dèjà xam ngeen ne may gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi fi teew di wax ne tey am nañu mbégte lool ndax euh, lii guleet la guleet ñu organiser conférence religieuse daan nañu organiser yeneen manifestation waaye tey ñu jàpp ni dafa bokk si dafa nekk noo xam ne sax dafa central doomu aadama donc ñu ah, organiser ngeen gis ñu takko suñu jigéen ñu takko solo ba rafet taaru léegi ñëw organiser Euh, manifestation bi sur des thèmes nak yo xam nga am solo la muy héritage sur des thèmes extrêmement importants comme la politique donc tay am nañu mbégte kontaan nañ trop. nga Médina mom ñun la Médina a été bâtie sur des valeurs des principes des thèmes fondateurs ñi nga xam ne baax baax depuis 1914. di wax ni nak El Baba Thiam lu ñu nampal mooy lii. mooy euh, politique yan saa yi nag dina indi ay. mi nga xam ne tubaarkàlla réew mi ràññee nañ mais lolu defe wessu weesu ko. boo gisee fii ñëpp ñu fi. tubaab kàlla Mamadou Diop ñu koy sant ci meeru Ndakaaru sont représentés dama ne préfet maayu boobu la di Adama Thiam moo ko taxawal toutes les parties mooy waaye bi ma jee xamee na ko ba jàng jotee mu jàng ngeen fi Soninke yi gis ngeen fi tukulóor yi gis ngeen fi laayeen yi gis ngeen fi ñëpp teew parce que la Médina est une la Médina est une na loolu man kontaan naa si loolu tey yàlla yàlla wërsëgal nañu incha allah ñu leen di joxe peut être 4 à 5 billets de la Mecque baax ñoo xam ne si biir mbooloo mi lañ nekk parce que ñu may ñu ay billets ak soxna woon bu sëriñ Maodo si seen bàyyi dafa baax loolu ci yéen te seen déplacement yombul réew mi bari na lool waaye tubaarkàlla bu Cheikh Ahmed Tidiane ba xewlee.